ngeen jot a xam ne doon lu ma ci doon liggéeyloo bu ma ko xoolaatee daal lépp ba ci doon sikk sàkk ci njëlbeen gi rek loolu mooy li nga xam ne moo ciy teewaat ci sama xel mbir mi eh, yett tax nañ man nanguwuma ko bi ci jëkk bi mooy photo bi nga xam ne am na téeméeri at ak nangam te gaa yu baax yi fi jaaru ñëpp kenn ku ne yàlla ne woon siiw am ko itteele nañ leen fu ñu mën a jële jumaa njaar ji ba teg photo yooyu ku ne soxla woon na ko am jamono yooyu te ki ñu ci war a tudde sëñ Matar Binta booba waa kër sëñ Matar Binta a noo Binta ñu bàyyi bi téeméer ak jàll ak nangam ci indi ko ci jamono ji nga xam ne itam maanaam mënees naa dajale ay photo yu bare bare composé ci ab xessa boo xam ne bii su fekkee yaa ngi koy nettali ku ko fekkewul woon du mën a du mën a wax mukk ne lii kooku mooy suppi sàkk bu njëkk bi njëkk bi bu ci toppaat nag mooy xam nga sëñ mu Lamin Jóob bu muy nettali moom euh, te xeer wa dafa wax ne sëñ bi dafa dugg ci tax ma ci xofra ba nasala taxala aw nasala xaw ma nu ko ci nete ilal xofrat ci pax mi la duggoon di ñu koy jottali yooyee te foofu nga xam ne bii fa la ñu wonee ñu nga sëgg yoon lu mel ni ay turel foofu moom du am tax te ka ñuy wax ne moo xaw a ñu roog sëñ Mata Binta fee jut foofu sax far ka jàkkaar lool mooy tubaab ba sol kesk bi ak keneen ku sol lu weex lu mel na ku kaalaw kon loolu énergie eh, yooyu boo ko xoolee ak ñu suñ mën laa mi jóof nettalee su jàllee nag man li nga xam ne moo gën a nekk sama farata moo di sama sama li ma njëkk sikk sàkk bu mag bi dëgg-dëgg te moo di ne ci waxum keroog ba tubaab yi daje ñoom ci jeewal ba bañ ci sep ba bañ ci sempee seen loxo xam ne mën nañ ko dara fone foto nañ ko fa te mën musuñu ko a jàpp fone fone foto nañ ko fa musuñu ko mën a jàpp waaw daaw dem nañ ba naago ne kii foto ko jàpp ñu ñu ñu bàyyi ko génn ci waxatuñ sa ay waxat waxe loolu bu mu ñëwee njoobal photo bi nga xam ne moom la ñuy barkeeloo dañu wax ne daf leen koo may daf ko dañ ko ñaan mu may leen ko mu génn waxtu tisbaar wala waxtu takkusaan julli ci jàkk ci biir génn taxaw ci buntu bi may leen photo boobu moom dong lañu photo ñu jàkkaloo xam ne Sëriñ Tuubaa ngi nii ci des yëpp nag mën na nekk desin mën na nekk photo bi ñu fotowaat ko mën na mën na nekk leneen leen waaye jëmmi Sëriñ Tuubaa ju leer nañu ñu foto ko mu leer nañu tudd bi ma ko fenn te mosuma koo dégg fenn itam te it danaa ko sikki sàkkal lu baax a baax ba bañ ci ba bañ ci am ba ma ci wax ba bañ am yàqin te bi dana jafe lool ñu ma koy war a jox dana dana moo tax eh, yett yooyu nag boo leen dajalee man li may jox mooy photo bi waaw photo yi nga gis nii am nañu ko composé rek góor bëgg a nekk bëgg a nettali xisab eh, xisab eh, kii njaareem wala ñu for dara ci archive yi tubaab yi euh, bëgg ci bëgg ci euh, am luñ ci luñ ci carrière daal am na daal am daal beneen jubluwaay bu bokkut ak bëgg leeral dëgg-dëggi tax euh, prospère yor port jumaay jaaren daal defe naa am na leneen lu dul loolu ba ba ca loolu àggee nag kon nun li ci suñu wàll léegi moom dama ca sikki saaga wala ci suñu wàll moom sëñ Matar Bintou moom ñu xam ne moom bàyyiwu fi ab photo te ba léegi wala si bitim ngeen di abonné fii si Tawfekh ngeen mën a jot moo leen vidéo boo xam ne